fala ilaha illallah fala ilaha illallah ya rabbi la ilaha illallah muhammadu rasulillah fala ilaha illallah fala ilaha illallah yaram bi la ilaha illallah maam fal boo ñu joxe la dootuñu def nanu defoon. salaamaaleykum mbokku internet yi nga xam te ne yéen safoo Hann TV am na ñu mbégte ak contentement bu xëy rek daal di ñëwati euh, si seen euh, reportage yi nga xam te ne yéen a ko bëggal seen bopp muy le grand magal de Touba édition 2019 ñu ngi leen di béggee bu baax a baax képp ko xam ne rek yaa ngi nekk euh, partout dans le monde di suivre li nga xam te ne moo di Hann TV. tey nag dama am mbégte ak contentement bu rëy rëy euh, ñëw fii nga xam te ne rek euh, moo di ci Ndindi seet si waa kër Baye Abdou Karim rawatina kuréel bii nga xam te ne moo di euh, BMD ñoom ñi nga xam te ne dañoo nekk ay taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarima Axla ñoom laa seet si tey fas yéene ñu fas yéene waxtaane li nga xam te ne rek moo di màggal Touba avant après ak tamit jours yi bi nga xam te ne rek moo di màggal gi damay def lu rek daal di euh, dalal Baye Fall bi bu ko defee rek moo bàyyi ko mu nuyoo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. di lay bu baax. di la delloo ziar bu wér a wér. tur bi naka la. Amdi Moustapha la. Amdi yow lan nga doon ci kër gi. waaw bu ko defee maa ngi tuubaat bu baax a baax di jégalu rek di siyaare képp ki nga xamante ni moo ngi si jotaay bi rek siyaar bi nag ñu ciy tàmbali suñu yaakaar tey ëllëg si Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fallou. si toftal suñu jëwri mam Lam Fall ak jëwriñ yi nga xamante ne ñoom ñoo tok sama wet di ma degen ñeuka jité kurel bi ki ci top di Modou buso ak ñom Kaboro ga yeb rek ku lim da ngay jum ak soxna Sali jame bi nga xamante ñu mo jité soxna yi waaw man nak dir bi man ma fi nek jëwriñ bi nga xamante mom mo jité daaira bi wa lool mo nek sama taxaway daaira bi euh, lan moy euh, ki bi objectif bi lan la. objectif bi mom ku xam daaira xam daaira ni muy doxé xam ni dañ ci jaamu suñu borom. jaare ko si Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu nekk si ëttu sëñ Fallou suñu yaakaar tey ëllëg mooy li ma wax léegi sànq mooy Cheikh Abdoul Karim Mbacke moom sëñ Fallou objectif bu daayira moom ñëpp xam nañ ko maanaam jaamu yàlla la daal si biir jaamu yàlla yi defuñu ko lenn lu dul di si jaamu yàlla waaw si côté yëpp nag si fànn yëpp loolu mooy objectif bu daayira te daayira dafa baaxoo lu baax lu ne rek si la bokk te ñun dañoo tënk si makaarimul axlaa te bi ñu laajee sëriñ bi lan mooy makaarimul axlaa dañu makaarimul axlaa de lépp lu baax rek si la bokk te loolu rek si loolu rek la ñuy dox mooy si lu baax di sensibiliser ndaw ñi ak mag ñeeg ñëpp képp koo xam bëgg na lu baax rek su ñëwee tàbbi si ñun rek ñu ànd ak moom si lu baax loolu si lañu sëriñ bi woo muy makaarimul axlaa waaw. ku bëgg a dugg ci kuréel bi naka lay def. waaw ku bëgg a dugg si kuréel gi moom tàmbali bi ni ñu koy waxee rek ñaar fukk ak juróom-ñett la su ma bi jëwriñ ji njëkkee jiite liggéey bi ñun noonu lañ si tàbbee waaw dangay joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ndax dañ ni sëñ Mamadou Moustapha noonu la doon tàmbalee jumaay Touba gi kon ku bëgg dugg si kuréel gi da ñëw adhéré wu joxe ñaar fukk ak juróom-ñett am na jëwrin am na trésorier am na secrétaire général am na lépp daal comme li association di am bi association nag la li muy am rek bii tam loolu la am maanaam bee day saayir bii di baatin waaw loolu mooy ku bëgg a si biir liggéey bi loolu ngay joxe adhéré ñu jox la tamit sart yi dafa daayira dafa am ay sart yoo xamante ni noonu lañ siy tënkoo képp ka nga xamante ne nag respecté woo sart yi tamit am na euh, ay gars yu fi nekk ñoo xamante ne ay jëwrinaat lan ñoom ñooy dox si loolu ba nga si ngay tënku par la force boo si mënul tënku da ngay pousse nii rek. mu mu nekk ay ay daan yoo xam ne dañ la koy dañ la koy teg pour en cas yoon bañ ko defaat. waaw waaw waaw la daal ndax daan bi euh, borom bi moo ñu ko moo ko digal daal. ñu koy def maanaam ndax lu daayira boo si nekkee da nga war a saxoo lu baax ndax wax naa ko si njëlbeen léegi jaamu yàlla la kon jaamu yàlla mënul ànd ak lu safaanu. kon képp nga xam ne yaa ngi siy def lu safaanu tamit dina la si tàggat si lu baax ba nga mën a ñëw ànd a gars yi du sax loo xamante ne tey maanaam danga si da ngay safaanu rek ñu bedd la déedéet ñun maanaam amaana sax daayira boo gisee lu tax mu gën a ñëw ñi nga xamante ni tey danoo demoon ba jàpp danoo réer wala jàpp ne ñoom mënatuñoo baax sëriñ tey sëriñ bi si loolu la loolu la gën a aay si ñooñ lay tàggat ñu ñëw ñu ñu defanteeg ñoom benn ñaar ñett ba ni ñuy gën a adhéré wu ba gën la sax yow booy yow jëriñ jëwriñ ji waaw kon daal mu mel ni ñoo ko déggandoo bu ko defee rek ñu dem ci euh, jëwriñ moom tamit ñu bàyyi ko rek euh, ñu jox ko kàddu bi bu ko defee moom tamit mu daal ñuy expliquer li nga xam ne rek euh, mooy kuréel bi rawatina rek ni ko tuddee muy kër sëñ Abdou Karim borom Makaarimul Axlaa salaamaaleykum jëwriñ. bu baax. ñu mën nañ xam tur bi ak sant bi ak tamit lan nga doon ci kër gi.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 ومولانا محمد بن عبد الله يا سيد العرب يا طه مبكي نيو لي نوي باخ دي لن زياره لو جيتو نيو نوي اك زياره الخليفه عام في تاريخ في تاريخ مريديا شيخ منتقى مبكي بصيرو ديكو نيانال ci barke bis bi ñu génn sunu borom guddal aw fanam lool wéral ay cëram lool dëgëral ak taxawaayam lool ci yoon wi bépp naal boo xamante ni naal na ko ci liggéey bi muy liggéeyal ku tedd ki xaadimul mustaax saa borom defal ko tawfiix ba mu yeggale ko ci sagom ñu ànd ak moom di ci teg sunu sëriñub sëriñ muy alxalifatul am di sëriñ Abo Baraka ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbakke di ci teg sunu yaakaari tey ak ëllëg kii nu def lii nu doon tey dajale ñu ci barab bu tey bi ñu nekk tey muy Ndindi muy Cheikh Abdul Karim Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbakke borom makaari bi lax nga xayante yi sunu jotaayu tey bii. ak sunu jotaayu démb ak sunu jotaayu ëllëg ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko waral ngir lu ñu doon tey moo nu ko def fii ñu ne tey moo nu fi indi de bu du woon ak jëmm ju tedd jooju amaana barab bu tedd bii barabub leer bi barabub texe bi barabub yërmande bi mën nañoo dund ba faatu te duñ fi teg suñu tànk wala boog dun ko sax dégg ba di ko xam. kon noo ngi sant Balla isa baax a baax di ñaanal ci barke Cheikh mohammed Fadal loolu juróom sunu borom guddal aw fanam lool guddal aw fanam lool guddal aw fanam lool ba bépp naal bo xëy tay su mën nako ngir liggéeyal Cheikh mohammed Fadal Mbacké borom tuwa sunu borom defal ko ak tawfiq ak katan sam ko sam njabot gep ba mu yeggali ko ñu and ak mom di siaré nit kenn ci ñun ko xayante tay muy sunu kilifa di sunu bayi. di sunu jëwrin nga xayin moo nu jiite ci liggéey bi te ñu nekk ci keppaaram bi ndax baatu BMD boobu ngeen dugal maam ci loxoom la nekk ci kàttanu sëriñ bi muy sunu maam buy lam fal ngi koy ñaanal sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram defal ko tawféex defal ko sutura defal ko ak ndam lu rëy rëy ci liggéey bi nga xamante ni muñ ci jiite ci biir kër sëriñ bi yéen waa Hann TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen wax ahlan wa sahlan teew ngeen fii ngeen xamante ni seen barab la asalaamaaleykum bisimilah. ñu lay bu baax a baax mën nañu xam euh, turu euh, BMD la naka naka la ñëwee tamit gis nañu kuréel yi bëri na torop rawatina màggalu Tuuba bu ñëwee euh, fu nekk rek la ñuy wax ne fii kuréel la fii kuréel la mais fii nga xam te ne moo di ci Ndindi ñëw seet si leen yéen ñi nga xam te ne waa Makaarim Axlaa bu yaraax. bisimilah maanaam baatu BMD maanaam mooy booloo mooy doole. te loolu waxi alxuraan la euh, alxuraanul karim sunu borom moo wax ni yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm bokk ab pas-pas na ngeen takkoo ci génn buum te bu leen taqaliroo muy wax tasimu bi abdillahi jamian wala tafaraq loolu nag mu ngi jóge ci organisation bi nga xamante ni kër sëriñ bi kër sëriñ ba ëttu euh, ëttu sëriñ Abdou Karim Mbacké moom noonu lañ ko organisé ndax mbir mu nekk dafa war a am noo xamante sii da koy doxee ngir maanaam mu bañ a jaxasoo wala mu bañ a doon rëpp rëpp ndax bu fekkoon tey tey jii maanaam képp koo xamante ni jébbalu nga ci sëñ bi tënku woo ci daayira ku ci nekk jóg bëgg liggéeyal sëñ bi ci saw yoonu bopp bëgg jóg yegg sa sëñ bi si yoonu bopp buuxante dana metti waaye bu fekkente ni sii tey maanaam mbooloo mi nga xamante ni tey ñoo wuy sëñ bi ku ci nekk maanaam gox ba ngeen nekk dajale ngeen fa yéen ñi nga xamante ni yéen a bokk ànd di liggéeyal sëriñ bi niki ñun ni nekkee yarax dajaloo ñun ñëpp tënku ci benn daayira di liggéeyal sëriñ bi ñu nekk ci yeneen gox yeneen gox yeneen gox defee ko ni ñu jël jenn jëmm jiital ko seen kanam maanaam seen seenub ziar seen i kaddu seen i jëf liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi ak lépp lu ñu namm ci sëriñ bi ak lu ñuy sàkku sëriñ bi jaarale ko ci jëmm jooju teg ko ci loxo mu jekkale ko sëriñ bi bu ñu ñëpp defee maanaam liggéey bi dana jaar ci yoon te it dana rafet maanaam ay yoon yu ibbi loolu bokk na ci li nga xamante ni moo moo waral daayira te it mooy gën a taaral liggéey Euh, kuréelu yaraax nag benn kuréel la boo xam te ni bi mu tàmbalee euh, danoo amoon danoo am suñu kilifa teg ko suñu kanam muy Ibrahima Ndiaye mu nekk ci daar ji Ibrahima Ndiaye moomu doon suñu kilifa dox suñu diggante ak ju mag ji bi ñu tàmbalee liggéey bi ci diir googu jëwriñ yooyu ibbi yeneen i daara ak yeneen i daayira yoo xamante ni yeneen i mbooloo ñoo nga fa bi nga xamante ni si maanaam daayira yëpp muy yaraax caaro yi ba ci àll bi ni mu ko mën a limee daara yu baree bari la ku ci nekk maanaam daayira yëpp ñun ñoo bokk ci jenn jëmm ji nga xamante ni ñu jiite di suñu yili di suñu kilifa te yilif liggéey bi muy suñu maam Lamp Fall mi ñu tudd léegi moom jëwriñ ci boppam mu am xalaat ak pas-pasu boole daayira yooyu yëpp ci ben fédération fédération boobu nag mu jël ko ni gannaaw ñun ñëpp ñoo bokk pas-pas ñoo bokk jënd jëmm ñi ñu liggéeyal ñoo bokk jënd jëmm ñi ñu yaakaar ñoo bokk fi ñu jëm muy liggéey lislaam maanaam nañ takkoo kon ci buumu dëgg gi moo mu jël ay alxuraan bu tedd bu màgg boobu nga xamante ni si doon unité bi nga lañ ndax lislaam ci benn la taxaw li nga xamante tàmbalik yoon wi li mu doon néew néew niiw néew néew néew maanaam bennoo gi ñu bennoon moo may tey doole lislaam ba mu egsi fii mu egsi tey. waaw bëgg nañu xam euh, wàccaayu euh, màggal bi euh, comme par exemple démb ak tey parce que démb moo nekkoon màggal tey tamit mu nekk deuxième jour bi programme bi naka la demee. waaw comme ni koy defee. ci yoon wi maanaam yoonu murit lay wax wàccee yu benn la ndax bi nga xamante ni ku tedd ki ndax magal gi ndigal la du jëfi coobare maanaam ndigalu ku tedd ki Xaadimu Rasuul moom moo ne woon bis bu dikkee dañ ko ci santal yàlla sunu borom cant gi am na yuñ ci lim tàmbalee ko ci jàng Alxuraan jàng xasida salaatu ala nabi tudd màggu yàlla gi bernde jàng arxuraan jàng xasida tudd màggu yàlla gi di julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam doolu ko santale sëriñ Tuubaa sunu bëggoon nañu xam tamit euh, li nga xam te ne moom lañu ñu jël ren muy matukaay ren dañoo ne jigéen ñi bu kenn def euh, li nga xam te ne moo di ongul bu kenn def li nga xam te ne moo di ay sil maanaam yenn yi nga xam te ne jigéen ñi dañ dañ koy yokk ci seen yaram loolu laa bëgg nga ñëw ci tuuti parce que déjà comme ni nga ko waxee Serigne Touba euh, euh, dafa ne bés bi dañ ko santalee yàlla loolu la ñu wax kon donc bu ñu ñëwee màggal de Touba édition 2019 ñu tere loolu mën nañ la majeure partie xale jigéen xaj bi def defuñu loolu waaye bu njëkkaan dañ daan dëgër bopp di ko def ana lan ana lan nga leen di wax ci loolu ah, loolu mooy l'islam ba bu fekke jamono fay ah, def ba soppi ko ba nit ñi euh, jël li nga xamanteni ci lu ñaaw la ba ko rafetal jël li haram ba ko daganal jël li dagan ba ko woyofal am warul julit waye ku ci nek fa nga nek bu fekkente ni maanaam topp nga sa bakkan ba di ko defee noo xamante ni si dëppoo la na ko ko sa gox waye nak kër jamburit bo fay ñew da ngay fexé mel no xamé melokan wo xam mo neex borom te dëkk bi du dëkkub kenn dëkkub Serigne Touba la dëkkub état <laughs> du dëkkub gouvernement du dëkkub kenn fi Serigne Touba moko ko bi koy sanc kenn du fi dox ndax li fi nekkon xam nañ ko li lor rek fa nekkon Serigne Touba Tuubaa bi mu koy sanc ci ay manam bu doon saayir dama nañ ci ay risque yu met la ko ndax bi fi mu tollon ko fa duggoon Serigne mën nga dess mën nga ñak sa bakkan mën nga fa dess te ku tedd ki ci ak jaayante la ko kon nak ku ko xam yang koy da ngay fexé mel num bëgg nga mel am na sax sox yu nekkoon ci jumaa ji yoo xamante ni ay soxna yaay faal yu nekkoon ci jumaa ji yoo xam daan nañ doon liggéey nañ fi liggéey bu rafet ndax boo xamante si maanaam dëgër nga bopp ba def am loo teg say bëti indi <coughs> koy xëcc mu dagg loolu am na solo lool bi ko defee maanaam ñi ko fi ñi ko fi am nañ ñoo xamante ni bi ñuy dikk yor ormal sëriñ bi ak seen taalibe moo waral ñoom ñu ne lépp dañ ko fay bàyyi ñëw ngir jëm suñu toit doxi ndigal li am ñoo xamante ni ragal aw yat moo tax ñu bàyyi ko fa ndax amno noo say morom soxna mën la amno no def tek la ci yoon de nga ñubbu di sa yef itam ragal tax ñu def ko fi waaye lu way waay wax itam manam dal julit mom julit lay doon te julitub jigen da war am nu mu mel waaw waaw da war xaw melni yow mi mo na ci teg leen lokki wa ak sum soxna yi nga xam tay tey ma sha allah yalla na sa borom guddal seenu fan guddal seen cieur nga xam tay ñom buñ euh, soxna yëpp buñ melon ñom ben wayjur du joy du tit njabotam bu jigen ndax wayjur bu demee ba yor njaboot bu jigéen boo xamante ni toll nañ ci ñu war leen a denc dara gëntu upp boppam fii léegi de waaju baax ju denc loolu luy upp waajur la te it bu fekkente si nag maanaam dama jaar yoon wi nga xamante ni soxna yi fa lañ jaar maanaam dana danañ dimbali seen waajur bu baax a baax kon nag yàlla na sa borom guddal seen fan baax wéral seen cër ay jàmbaar bi ñoom mënuñoo wax liggéey bi tudd leen tudd waaw lool ba xaw sax waaw <laughs> loolu nañ ci bàyyi xel baax a baax. ak Yaay Fall daal lañu wax jëwriñ ñu ngi contané bu baaxa baax euh, ma ma tamit ci benen euh, jëwriñ bi bu ko ñu mom tamit mu daal ñu expliquer bu ñu paré ñu dem ceeg ci euh, jigéen ñi bu ko defee tamit ñu wax waxtaan ak ñom ci li nga xam tane né modi walu di bi assalamu bi jëwriñ wa alaykum assalam wa rahmatullah maa ngi lay ziar bu baax. ñu koy delloo. dafa mel ni rek jëwriñ waxna na lépp. waaw daa mel ni fu tolni mom da naka lepp mat na mom <laughs> di santat yalla bu baaxa baax rek. Euh, di santaat euh, sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di wax ne ni nga ko waxee rek am di Moustapha bi nga xamante ne moo njëkk a wax tey jëwriñu liggéey bi euh, pare ki jëloon kàddu gi di ma dégg mi nga xamante ne moo njëkk a doon jëwriñu kuréel gi ba nu fi bawoo tukki ginnaaw yàlla def ñu nefi fi nekk fi. am ak ñoom si liggéey bi ba ñu fi bawoo dem daara ja ku ñuy wax Kamal ne fi ba ñu fi bawoo tukki am di mu mi ne fi di wax ne loolu yëpp dafa tënkuwaat si benn hiérarchie bi nga xamante ne noonu la ñuy doxee waaw di santaat nag bu baax a baax a baax a baax a baax ndax suñuy kàddu mun na see néew lool ndax euh, yaakaar naa kii di ma dëgg lu si développé ak lu si leeral yaakaar naa dañuy tënkuwaat si loolu rek dañuy jëlaat suñuy suñuy kàddu rek. dugalaat ko foofu waaw xanaa kay di gën a santaar rek suñu jëwriñ yi nga xam ne mooy jëwriñ Lam Fall xamante ne mooy moo waral BMD ngir ba ñëwee léegi sax fekk ma kër sëñ ba ne ma dañoo bëgg a gisante jëwriñ Lam Fall man leen ndax yëgoo ngeen ak ñu xawal ma ne ma waxoon nañ ko aboo ndaw man leen yéen boo leen ñëwee ba fii kër sëñ bi waral a dem si jëwriñ Lam yaakaar naa waroo leen si wax ak aboo Ndaw yéen waa Yaraax ngeen war a waxal waa Yaraax ñoo leen war a yóbbu si jëwriñ Lamfal ndax waa Yaraax ñoo fi nekkal jëwriñ Lamfal di si tooñaale bu buuna noonu waaye yooyu yëpp sant la rek ba ma si déggante jëwriñ jëwriñ dama xamal ne ma sama kàddu ma ngi foofu waaw li ñuy def ak man nañ ko def ak yéen kon loolu yëpp day delluwaat rek si santaat di wax ne maanaam li ma dëggan doon leeral ne maanaam penc mi pencam la waaw penc mi pencam la te dafa bokk si ay penc yi nga xamante ne da koy bàyyi xel ndax moom li ko sëriñ bi di bàyyi xel moom sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou ni mu koy bàyyi xel si liggéey bi di bàyyi xel jéego yu muy doxal si BMD moom jëwriñ Lamfal mi nga xamante ne moo yore BMD moom nanu lay bàyyi xel liggéeyu yaraax waaw si ko bàyyi xel nag si anam yëpp si doxalin yëpp waaw kon loolu nag dañ siy santaat bu baax a baax a baax a baax di siyaare waat suñu jëwriñ Ibrahima Ndiaye di ko ñaanal moom it mu yàgg fi loolu tànd ak wér comme nu ko ba déggandoo leeralee sànq it ne liggéey bee yaatu ba mu dem Tamba yoro fa liggéey bu toll nii loolu it sant la waaw kon taw fee rek. waaw jëwriñ euh, bëgg nañu xam euh, ban conseil ngay jox rek euh, Baye Fall yi ak Yaay Fall yi nga xam te dañuy faral di ñëw di màggal si rawatina édition 2019 mi gannaaw ba suñu jëwriñ bu waxee lépp rek. tënk rek maanaam. waaw sant rek sant rek daanaka moom leeral la lépp ndax dañ ne maanaam màggal gi moom Serigne Touba moo ko tënkal boppam ni ko war a ndax dane santale ma yàlla suñu borom te ko dafa am sa ay principe yu mu ko teg ndax Serigne Touba moom ñëpp xam nañ ne léppam jaamu yàlla la te képp koo xamante ne yaakaar nga Serigne Touba wala ku koy ku koy bëggee ndax am na yaakaar ne siñ Tuubaa moom ñëpp koy safoo boo demee bay teew si dëkkam bi di fi màggal si war ngaa bàyyi xel maanaam ndigal yi nga xamante ne maanaam suñu borom moo ko joxe nga tënku si ndax fii moom lépp lislaam la tere it nga bañ see ne bañ la koy tere ndax euh, yaakaar naa ku newul si tere yi doo dajeeg soxna yooyu nga xamante ne da ngay ñëw ñuy ñuy dindi say xefak wala ñu lay duma yooyu yëpp day mën a ñaax te dañoo toll foo xamante ne ñi ngi si boppam ñoo war a yow ndax ndigal li nga xamante ne sëñ Muntaxa Bachiru yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mii sëñ Tuubaa si kaw suuf mujj na ko yaatal yaatal ko ba am fu mu si toll ndax ndigal li keroog bu muy jug sax moom sëñ Muntaxa dafa dajale njaboot sëñ Tuubaa gi yëpp suñu yaakaar tey ëllëg sëñ Abdou Karim fa woon ne ndigal li nga xamante ne maa ngi koy joxe dama bëgg ñëpp ne si wax ndigal yi nga xamante ne moom la ñuy bañ fii si Touba lu mel ni ki ay kar wala ay taaxuraan walla ay ay pecc walla yi nga xamante ne jigéen ñi moom la ñuy jëfandikoo mooy yokku yokku karaw wala ay xeesal yooyu yëpp rek yooyu waruñu woon sax xaar ba sëriñ bi di ko tere ndax dëkk bi ni ko ma déggeen waxee sànq rek dëkkul lislaam la Sëriñ Tuubaa bu mu koy sos lislaam képp moo tax mu sos ko waaw ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax rek di wax ne moom jaru muy gudd ndax yaakaar naa tënk na lépp waaw dañuy santaat sëñ Tuubaa rek di ñaanal bu baax a baax si Abdou Karim Mbacke yàgg fi loolu tànd ak wér encore une fois it ñi nga xamante ne ñoo bokkoon ak ñoom liggéey bi ne fii ba boo xoolee ñu si ëpp ñu ngi Europe nga xamante ne ma dégg mi moom lañ nekkal foofu ñenn ñi ñu ngi Italie ñenn ñi ñu ngi France ñenn ñi ñu ngi Espagne fépp rek ba Allemagne fépp. ku mel ni ki Kamal ñoom Abo ak Mamour Gueye ñoom Serigne ñoom Sang ñoom Ahmada ñoom Ndeene ñu doon ay jàmbaar yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla ba ñu demee ba léegi dañoo ne si liggéey bi. te loolu dafa am solo dafa am solo kon ñu ñoo leen santaat bu baax a baax di leen ñaanal Sëñ Tuubaa gën leen a dooleel gën leen a kattanal bu baax a baax rek kon dañuy tënk suñu kàddu wàcc wàcce ko foofu rek. leen di ziyaaraat bu baax a baax ma dem jàll rek ci soxna yi fas yéene waxtaan ak ñoom. asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. ziyaar bu baax. maa ngi la koy delloo bu wér. tur bi naka la. maam Diarra Ndiaye. maam Diarra yaa jiite jigéen ñi fii ci kuréelu waa euh, kër sëñ Abdou Karim borom Makarim Axlaa bu yaraax. waaw waaw jiite. waaw rek kii mooy sunu yaay jëriñ Sali Diame bi daal lépp da koo teg sama loxo gis nañ ne eh, eh, xale yu jigéen yi ak Baye Fall tamit ñu leen jàppale bu baax a baax ci wàllum waañ bi est-ce que est-ce que yéen ci bàyyi xel bu maanaam wàllum set gi est-ce que yéen ci bàyyi xel bu baax. waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax na nit lépp lay togg jaamu yàlla di ci xewlu rek war a ànd ak ndax mooy première ndax lépp li ngay def sa biir dafa war a seet la ndax biir lépp lu ci bokk lu ne lay génn waaw ñun nag ba ndaw la jàppale te ñu ci. ba ñuy tut tànk ba léegi ba ñuy dal gene ba tey ñu ngi nekk ci waañ bi di gis ñu suñu yaay di def ñu ci ànd ak ñoom ba tey sëriñ bi dimbali ñu ñu mën a toog gérer suñu bopp suñu waañ ñu koy santaate sëriñ bi bu baax a baax a baax waaw te xam ne lépp moom la rek wala ay sa moo ñu jàppale moo ñu dimbali ñu ngi koy santaat bu baax a baax a baax. gis nañ ne euh, da ngeen da ngeen def ba mu simple mooy maanaam li nga xam te ne rek moom la ñu tere avant rek nit ñi di ñëw ci màggal Touba bi euh, euh, lan rek ngay wax xale yu jigéen yi nga xam te ne dañuy même bu dul màggal dañuy bëgg di dugg ci waañ di def na di def seen i di jokk loo xam te ne ne bokkul ak seen i weeju bëgg ko jëfandikoo ak li nga xam te ne moom la ñuy lekk. Mhm. wàllum ongul yeeg ak sili. Mhm. ñun moom lañuy sant bu baax. gis ne sëriñ bi daf ñoo teel dimbali. ba amaana loolu sëriñ bi di tere fekk nañu bako bu yàgg ñu santaat sëñ Abdou Karim Mbàkke bu baax a baax a baax gis ne daf ñoo defar tey di sëriñ bi di tere biir Touba gisoo kenn ku ko fi def yokkuñu leen ku ci nekk dafa yor ay njañam complexe wuñ si nag respecté lu ñu doon bu baax tey kenn du ñëw ne sëriñ bi nee na bëggu leen nii ngeen mel tey bu ñu seenoon bala ay sax duñu am complexe pour ziar ko ndax lépp lu muy tere ñu koy def ñun banan ko yàgg na ba ñu doonee ay yaay faal ci lañ ba lépp ma sëriñ bi rek te yàlla rek tax ñun bés ba ñuy tere mees yeeg greffage tiituñu ndax boo fekk na ñu bakkoo ay at barki sëriñ Touba te lépp sëriñ bi la ñu koy santaat bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér bala ay sa ak mu ñoo dimbali wallaahi ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ma daal di bàyyi soxna si rek mu daal di yëkkati lala yaaram ala lala ala xa lala am Cheikh Ibra mbéyum jaam ñépp yow la ay lay faal illallah no ay la ilaha illallah ay la xa am Cheikh Ibra fu la góor de di dabe ay lay faal ilaha illallah laay laay faal laay faal la laay aram laay laay la hëy laaw laay la xaa la laa la laa la laa am Cheikh Ibra mbégum jaam ñépp yow laay laay faal la laa moom لا إله إلا الله لا إله إلا الله am Cheikh Ibra te moo ko internet lii rek lañ leen andiloon rek ci uh, kuréelu uh, BMD uh, fii nga xam te ne moo di ci diwaanu Ndindi ñoom ñi nga xam te ne ñoo nekk ci diwaanu Yaraax ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax dañ leen di jox rek dig daje ci kanam tuuti ñu daal di doxantu ci boori jumaa ji